pur léegi boo ko bëggee jënd siwo yi jafe na loolu ba nga xamante ne léegi indil nañu ay papier peint papier peint yi cherul dara mhm. te di ko mën a taf ci mur te comme ni mu ko waxee dina yàgg mhm. du laaj chaque mois wala chaque année nga changer li nga xamante ne peinture am na comme bu nawet bi jógee ñu bare dañu am problème bu nawet bi passé dañuy jënd ay peinture di defaraat mais papier peint boo ko xasee ba am mhm. taf ko doo sonn te rawatina nag dindi bi dafa yomb parce boole woon di papier peint euh, day yomb dindi. Ah. waaw lu ñuy gën a dund Mado Dakar mooy ñàkk espace ak ab xataay. Uh-huh. ñoom ni ñuy décorer dina nu may par exemple. Mm-hmm. malgré sunu xataay appartement ak nu mu mën a toll. Mm-hmm. nga nga yëg ci sa bopp. voilà exactement ñoom déjà sax base bi nga xamante ne ñoom nañuy demee mooy balaa ñuy ñëw rek di décorer kër jàmbur il faut ñu ñëw xool d'abord sa kër nu mu bindoo par rapport ak ni sa kër bindoo bu fekkee yaatu na wala xat na ñu xool parce que loolu am solo. Mm-hmm. bu fekkee da nga jël ci benn appartement boo xamante ne dafa xat ñi ngi ci taamu ay couleurs yoo xamante ne dafa vive nga xamante ne daf lay may lumière ba boo ko décorer kër gi dina mun a yaatu bu baax. Mm-hmm. donc euh, vraiment loolu la daal. am na solo laaj bi may faral di indi rek mooy euh, njëg li. yu ni mel yomb na am yombul am. yomb na yomb na bu baax ah. tonton macha allah parce que comme ni ma la waxee peinture yi léegi boo ko bëggee jënd sio bëgguma gaa sikkal ñi nga xamante ne dañuy jaay peinture. Mm-hmm. Euh, wala ñaar je pense que pratiquement bu dee sa néeg lëmb mun nga ko ci def donc vraiment les prix sont très accessibles mhm. donc vraiment man daal li may def mooy damay ñaax jigéen ñi parce que dëkkuwaay dafa am solo mhm. nit di nga sañ sañse génn ñu foone macha allah te bu ñu duggee sa kër dangay ngay rus mhm. kon damay sas daal li nga xamante ne moo di jéeg-jéeg wala soxna si ñuy tàmm di defal li nga xamante ne seen dëkkuwaay ndax neex na sa borom kër wala sa àllaaji bu xewlee invité ay moromam boo taajee cuuraay neex na nga togg togg bu neexit neex na ba dee mais daal li ci dàqati mooy bu ñu duggee ci environnement bi environnement bi yànj ba nga xamante ne dinañ am joie de vivre ci biir kër gi loolu la olof di wax ma doo bañ ko def catum ginaar am na ñoo xam bu ñu la rombee macha allah waaye <laughs> mu nga waaw boo duggee seen biir rek xaw a <laughs> jaaxle Aziz euh, dégg naa sax nga commenté tuuti euh, xale bi bi mu toogee ci fauteuil bi ni mu wëndeeloo noonu mais boobu duñ ko développé hmm. dama lay bàyyi rek nga indi sa xalaat ci décoration intérieure waaw ci ci laaj yow <laughs> euh, leen ni li ma ci gën a neex mooy ndëstal waaw dafa amoon booba bu mhm. njëkk loolu amoon na buñ ko defee dañ naan diw amul alal. Mhm. wala nangam te léegi gis na ni ndëstan buñ ko indee. Mhm. ak décoration bi ma doon wax. ak cuuraay li mu indi woon keroog ko ci boolee day nekk décor boobu bu neex a neex. voilà exactement euh, ndëstan am na ci solo. waaw ndëstan am na ci solo te et am na ñenn ñoo xamante ne biñ leen ko doon laaj dañ doon wax ni bu fekkee da ngay tëdd tëraayu suuf képp koo xamante ne daf lay jéem a liggéey. Ah. i pare nee nañ du la jàpp <laughs> mais nag ma ñi ma jot a laaj ma wax mais daal <laughs> Diop euh, Mado Abdou Aziz moom bëggul lii <laughs> ak am fit tonton Kaj macha allah gis naa ko sax sànq mu joxe ay technique mbiru gawe saaf bi desel indi moom daal borom xam-xam la macha allah eh, jërëjëf Mado bu fi newuloon dañ koy fent moom Aziz <laughs> eh, programme bi nag dina xaw a ëlbatiku tuuti ndax sunu gan gi dafa mel ni moom it cuuraay laa ko jàpp bu mu biddanti <laughs> Cheikh Mbow bu ko si dem fi mu ñëw eh, dañuy ànd ak yéene kaay bu noppiwul kon c'est pas sérieux c'est sérieux moom noppi na ndax ñoom ay ay jinne lañu fi la ñuy fanaan tonton Adessi no comment. toute la <laughs> journée il va pleuvoir. Ah, on a beaucoup de, beaucoup de l'eau qui va tomber. Il faut bien cultiver la terre. L'eau à abondance. L'eau en abondance. Merci. À demain. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! tey sax fii taxaw def li may def camarade <laughs> bu ngeen ma falee dama koy def benn bu jëndee benn rek am ci yëpp waaw ak dégloo ak dégloo ak dégloo yow balancel fee wax ci mu gaaw takit kita takit takit takit takit waaw eh eh waay. mbay bës. ah bon. c'est bon. 5 4 3 2 1 stop. jërë ngeen jëf. allo allo allo allo. noo ko daan dañoo gis ngeen cong mu tëgg la mbot. nga ndengeñ ko reculer mel ne ku koy daan te daanoo ko far nga ne ko wëlbët gàng noo ko daane kon nag gars di leen jox dig daje <laughs> tonton dañu koy gërëm di ñaanal si la muñal ak tan waaye bu mu tiit ndax am na ku ko fi wuutu Mouhamed Ndiaye ngeen dégg rek mbokk yi waaye am na ci ay ay ay binôme yoo xamante ni ñaar ñoo jël fii ci kër gi rek ñu doy waar lañu Abdoul Aziz. waaw <laughs> Assane baax na ci trop ñu indiwaat li nga xam ni moom la gars yi duggee ci biir kër gi. léeg-léegi nekk ci avant liggéey bi. parce que day wane ni fii euh, nit ñi ci ambiance boobu la ñuy nekk. ba tax buñ ci dugg rek mën na defal sutura ba muy lu neex téléspectateur. entreprise boo seetloo waxtu ya nga fay def doo ko def sa kër foofu boo fa amul jàmm foo koy amati. waaw ah, doo doo ko am El san moo tax euh, dajale ci ay nit ñu nga xam ni seen dikko seen euh, dikko dëppoo na. Mm-hmm. ba pare. teg ci seen kaw ku laa biir mhm. parce que ku laa biir jiite ay xale dina tax ñu ñime ko ba tax lu ci nekk rek bu leen ko sante ñu am ci sawarte waaye fexe ba nu rus la ak ragal la du benn dëgg la parce que buñ la ragalee boo demee ñu def li nga tere waaye buñ la rusee boo fi nekkul duñ ko def la chance bu groupe Futurs Médias nag mooy daanaka ñoom seen jiit ak ñoom ñoo maasee c'est la oh, même génération léeg-léeg bu may xas xale yi sax lu leen wax dama leen am na kër yeneen yoo xam ne sax ñu fa def yi ngeen def maanaam ci souplesse gi euh, ci ci leen yenn yi nga El Hadj Assane yow ku la gis tey ak ni nga mel bi nga ñëwee ak li nga ni nga solo ak ñëw uh-huh. uh, vie yi caméraman yi ku ci ne da nga sa caay ak yor sa mbaxana te kenn moo tax uh, Futurs Médias di bërëb boo xam ni uh-huh. neex deret ak waxtaan moo ko lal ba uh-huh. tax na lu bari doo koy yi ngay dégg feneen doo mënoo ko fi dégg uh, faaw nga tudd sama deux temps bi ma xëyee tey ndax il faut ñu joxe la bonne info xamoon naa ni di nga ko yeggee mbokk yi mu ngi noonu Mado nee nañ jàmm ci la lépp xaj dañuy waxtaan ak mbokk yi xanaa naa fi léegi di pare parce que nag tey temps yëpp ci fecc gi la ko gënoon jëme moo tax yéene kaay yi noppeegul dëgg la moo tax damay gëm ni tonton euh, surprise sax defe naa lañ la ko defal waaye gëm naa ne yow yaa ko ëpp bopp eh eh. ndax am na lum la préparé waaye moom fem biñ ko may tey gëm naa ni ba sama dàq mu <laughs> mën nga nuyoo mbokk yi wala yow da ngaa euh, Antoine di jàmbaar la ci nuyul nuyul gars yi waaw simna fogole rek euh, ñaana naa den ngol i mbaajana ndeno feet i commencé na xedna teen euh, o ga'in euh, roog a fi euh, ndiig mosu mene senegal bu fop a nga teen a xoox den Ibou Dioko Ndiol dama bëgg a dugal nag micro trottoir mais xaw ma nu koy waxee ci séeréer en tout cas mbokk yi jàpp leen ci wolof ne ñenn ci askan wi rafetlu wuñu njàng meeg fi tolluwaay li senegal parents d'élèves bi rawatina saa su ne sa xaalis mel ni looy sànni ci àll ba doo gis sa gune mu jàng grève yu dul jeex loolee ñenn ci ñoom ci micro Assou Mbène Thioub ak Aliou Mbaye ñaawlu nanu ko jàng njàng xaw na sooxe. parce que xale yi nangootuñu jàng enseignants yi jàngaleetuñu. parce que je crois que maintenant nit ñi xaalis moo leen jiital. nangootuñu jàng xale yi nangu jàng parce que seeni kilifa yoratuñ leen enseignants yi jàngatuñu jàngaletuñu puisque boo leen gis ñu ngi daw xaalis. alors que bu njëkk ba da ngay gis un élève du cm e buy bind lettre mais léegi da gis élève bu troisième mënul bind lettre. vraiment loolu doy na war trop. jàng mi yàqu na depuis la deux mille deux mille parce que l'an deux mille l'an deux mille parce que l'ancien régime là dafa daan promettre loo xamante ne mënu ko tenir même le président de la république de l'époque wax na leen il faut promettre loo xamante ne mën ngeen ko respecter bon en promettant des choses yoo xamante ne mënuñu ko respecter nag alors les syndicats se fâchent alors taxaw braqué wu di demander l'impossible. Alors, euh, qui en souffre ce sont les élèves et les parents. bu ñuy xool responsabilité yi moom c'est partagé ko parce que aussi bien les le gouvernement parce que ñu fi njëkkoon nekk ñoom seen seen problème mooy ñu doon defee seen élection yi ba rogaat fi donc ñoom amuñu woon en def ay ay ay ay waxtaan ak yooyu noonu mais généralement tamit. enseignants yi tamit man je pense que euh, ils n'ont pas été patriotiques parce que seen intérêt dong moom lañ fi nekkal quoi. que moom ren baaxul ndaxte xale yi daanaka jànguñu dara. parce que demoon nañ benn dañuy année blanche après ñu changé waat. ñun la gën a metti ndaxte surtout boo dugalee sa doom école privée ngay fay école par mois di joxe ay paas sans compter yu sew sewaan yi si biir ba pare année bi ñëw ñu ne du année blanche jéem ko rattraper mais. da ngay gis ne sax xale yi dañuy forcer rek mais mënatuñu si dara ndax bi daana leen fekk ba fi mu ne nii ñu ngi continuer di jàng ba léegi li ñuy jàng pratiquement da ngay xam ne dañuy forcer mais affaire bi day na waar daal. les syndicalistes aussi war nañu mën a euh, am xel parce que sacrifier euh, les élèves comme ça toog pendant quatre ou cinq mois alors école bañ a jàng kooku ce n'est pas responsable du tout quelles que soient leurs revendications alors waroon nañu tenir compte si avenir xale